leen féete ndi joor yi amagul defet ndaysaan ñaa nag xam naa ne li tax mu ko mooy ñeme na ko gëm na ne bu arbitre sifflé ma ci dënn bi wala ci ci kanam tuuti koy xam waaye en tout boobu volume ñoom ñaar ñu ngi ndaysaan ñaa 2 ak Thiandoum Thiandoum 2 ñaa 2 ñaari numéro 2 kan moo war a jël deux bi keneen ki doon numéro 3 Thiandoum 2 Niang 2 ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Niang fermé na garde bi di dox ci kawam ndànk Thiandoum taxaw na Niang cokkaas na Niang cokkaas na dóor na Niang dóor na Thiandoum dox na ci kawam Niang dóor na Thiandoum fayu na ñoom ñaar dinañ xeex ñaar cokkaas na dooraat na ndaysaan ñaar de candum de candum xeex na fay mbaa door mu daanu du am ndaysaan candum de ñaar de ndaysaan booy ñaa mayul candum dara mu ngi fermer garde bi rek di dox ci kawam ndànk dooraat na ndaysaan candum xàqat na ñaa du reculer ñaa mi daa mel ni bandi de ñaa mi ñaa dooraat na ñaa dee ngi dugg di door càndum nu di génn na mu ko neexee ah nañu xaar xool waaye ñaa mi wàccu de taxaw na jodd di joxe ay coup te boo ko xam ne néewul doole moom ñaar deux ndaysaan cànd mu ngi koy déglu rek ñoom ñaar du yomb càndum deux ñaar deux ndaysaan ñu noonu ñaar doxaat na cokkaas ndaysaan cokkaasaat na jege si ñu nañ ba ci saaku yi gis nga ñaa dóoraat na dóoraat na ñaa ngay dóor cànd ba ngi bëgg a fay waaye loxo yi dafa diis ñaa ngi dóor ñaa du dellu ginnaaw doon na ko mu daanu wala déet cànd jël na jàpp na ñaa laa ilaaha illallah cànd jàpp na ñaa ñaa bañ na ndaysaan ñaa jege na saako yi mbaa day génnaat ñëw xeex ñaa fi mu ko tegoon ci xeex baax na ñaa fi mu ko tegoon ci xeex baax na bu doon maay booy ñaa damay génn saako yi dé dellu siwaat woo càndum ci xeex ndax càndum ndaanaan la ci bëre ndaanaan la ci bëre nañ leen xool ñoom ñaar gis nga ndeysaan nee nañ ko génnal càndum lool lay bañ càndum lool lool lay bañ day bañ ñaa génn ndax jàppante bi mooy avantage am ndeysaan ñaa deux ak càndum deux ñoom ñaar jàppante nañ ba tey ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ ngi noonu ci combat spécial bi noonu ñu ngi jàppante ñoom ñaar ñu ngi dóorante ci suuf ndeysaan Niang 2 ak Thiandoum 2 Thiandoum ma ngay xeex dóor na coup bi na jël ñaa bañ na càndum takk na ko ña ngay xeex ña ngay bëre kuy taxar naa se na xale yaa ngay xeex càndum deux ñaa deux galaaj yaa ngay dagg ma ngay dóor ci suuf ma ngay dóor ñaa aju na <laughs> mais Adama kuy laay kuy ku ma ci mayoon benn ma kaas ma daanu nelaw laay def jëli na ko daan daan na ko càndum daan na ko càndum daan na ko càndum daan na